asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu mbokk yi ma ngi leen nuyu di leen ziar bu baax a baax di ñaanal ñepp jamu di ñaanal ñepp salam di leen wax ne tay inshallah ah dañoo ñew tay indi leen tay secret bu am solo lol lol lol lol bi jëm ci walu ñi nga xamne dañuy def politique politiciens yi te bu ñu waxe politiciens nak ñepp mënu ñoo nek nak ay politiciens ndax politiciens mom moy ki nga xamne dafa ñew pour défar dëkkam pour défar réewam bu fekkene nak mu ngi koy def ci amine bu rafet mom waaw maa ngi jégalu si euh, dog-dog boobu noonu maanaa li bëgg wax politique moom dafa bëri ay façon am na ñoo dañuy ñëw di politique politique boo xam du du baax si dëkk bañ koy euh, defee dañuy ñëw pour euh, seen bopp rek waaye pour réew ma dégg loolu politique bu baax waaye am na ñoo dañuy jóg pour liggéeyal seen réew pour dugg politique dégg am ay ndomba tànk liggéeyal seen localité wax dëgg neex yàlla loolu dañ koy saluer te loolu moom euh, cëru ñëpp la ku nekk rek am nga droit nga def loolu sa dëkk sa réew si àddina bi yëpp ndax politique moom mooy moom mooy euh, gérer mbir yi dégg nga te képp kuñ gis mu nekk si yàlla euh, dimbali ko ba yu bari sax yenn saa yi day xaw a manqué si ñenn ñi da ngay bëgg siw wala nga bëgg am tur wala nga bëgg tey nit ñi xam la boo waxee ni ñi déglu la ndax te loolu da si am solo su fekkee ne loolu amul rek. daanaka li nga bëgg si politique boobu ngay def doo ko mën a am te loolu yaakaar naa ne nit ñi eh, xam nañ ko te dañ koy bàyyi xel waaw te yàlla dogal nag am ay secret yoo xam ne mi ngi si alxuraan eh, même sax am na ay yeneen mbir yoo xam ne sax eh, dafa neexuta nag ñu joxe ko fii si kaw waaye am na ay mbir yoo xam ne sax su fekkee da nga bëgg ndam si li ngay def bëgg genre mbooloo foo taxawee wax nit ñi déglu la soo waxee tamit nit ñi def soo wootee nit ñi wuy si la yooyu dafa am lu mu àndal te daanaka sax nekkul lu xaw a jafe waaw tey loolu lañ indi woon tey bëgg indi incha allah baaxee ko suju ay frère ak sœur suñu ay rakk mag ñoo xam góor jigéen ñu si bëri dañuy def loolu wàllu politique am koo xamante ni nii macha allah ku ku ku ku am dooma tànk la waaye nee na ma daal soo mënee ñëwaat si si si si genre secret yooyu dana baax suñu politiciens yi. ndax yenn saa dañ koy soxla mbooloo wax ñu lay déglu dégg nga ba nga ba nga mën a am yenn ndomba tànk yi itam ba mën a defar sa réew waaw incha allah loolu moo ñu si encouragé ku ne waaw tey incha allah dañuy ñëw pour séddoo ak yéen secret boobu noonu secret bi nag comme ni nga ko gisee seen écran bi nii boo boo leen seetloo maa ngi bind si kaw allahu kun bisimilahi rahmaani rahim loolu mooy ubbi bi ba pare nga teg si allahuma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbi wa sallam tasliman lii nii soo ko gisee day wane ne rek yaa ngi ñaan yaa ngi bëgg jublu si dara waaye yaa ngi ko ubbee ak salaat boo xam ne yaa nga ñëw nag def xaatim bii boo defee xaatim bi xaatim bi moo ne si digg bi noonu ñu ko wëralee ak alam nasara ñëpp xam alam nasara si li muy dox si wàllu fatu wàllu ubbeeku alam nasara la ko sa rek ba mu jeex boo gisee moom lañ ko tëggee Eh, so paree nak nga tejj ko ak allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman amin fa yakun suko defé nak li dang koy bind 66 fois li ni ngeen gis ni sen écran bi rek ngeen di bind ngeen bind ko 66 fois 66 keen ngay ut bind ko si léegi nag soo paree nan ngay def da ngay jël li nga def ko safara nga def ko safara amna na andal ci walu ci walu xam-xamu garab waaye dafa nekk ay composant yu bari yu muy àndal moo tax day xaw a jafe sax pour nga leeral ko waaye ku mën a def lii itam baax na waaye loolu desu ko mën a expliquer daal mu xaw a leer si seen bopp waaw waaye lii boo leen ko bindee 66 fois mu ngeen ko boole ak parfum yi neex ngeen def ko si siwo dégg nga di si sangu juróom-ñaari fan bu jeexee nga defaan noonu bu jeexee nga defaan noonu bu la neexee mën ngaa tëbal nag euh, di bindaat waaye lii moom ku koy saxoo moom bu soobee yàlla yonent bi dang ñu dang ñu gërëm dang ñu remercier li nga bëgg si mbooloo li nga bëgg si nit ñi bëgg la nit ñi déglu la soo waxee nit ñi man laa may nopp même tam si loolu maa ngi am benn socc boo xam ne socc boobu moom am na nu koy defee di ko kiiyee boo tollee si wax ak mbooloo wala di jëflante ay nit mbooloo bëgg ñu déglu bëgg ñu lay topp lay adorer jox la seen seen seen seen lépp dégg nga wóolu la socc boobu baax na ba saa booy kiiyee rek nga def ko sa gémmiñ socc si ba sa gémmiñ gi saf si ngay wax ak nit ñi dégg nga waaw waye yoy yep itam dafa nek ay mbir yo xamne mom tam waye nak dañuy leen wax rek li nga xamne mom la leen mëna waxal dégg bu ko defee li da ngay ko sango juroom ñaari fan diko continuer diko continuer diko continuer ba day dépendre sa moyen rek fumuy yëm euh bi ni benen mbir la li salatul fatiha la waye salatul fatiha bi amna lu ko jitu bi tam benen sangal la bu dul bu melni wax léegi bi da ngay ni jël euh, kayit ngeen bind kun bismillahir rahmanir rahim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 ووضعنا عنك وزرك الذي انقذ زهرك ورفعنا لك ذكرك بو اكتي بس ورفعنا لك ذكرك دنكوي بامتو 1397 ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك نكاي بامتو 1397 ابري نكو كونتيني آية بي ورفعنا لك ذكرك فإنما عشر يسران إنما عشر يسران فإذا فرق دفن سب إلى ربك فرق بآية بي يب يب يب يب جاخ سو بري نو لول دي نك سافر نجل سافر بي دكو سنغو mom tam di ko diko di ko sango rek bu jexé nga bindat bind mi sa bo defé loolu sango ko bam jex rek bindaat bind mi tank bind mom mi ngi saf sa yaram bi da nga saf nit ñi li nga bëgg ci diko am ci mbolo si ci démé da ko am. am na beneen bu ñu wa dudu wa dudu bi ngeen gis ni moy shirul wa dudu bo xamné ñun ñu ngi liggé tamit ci nak nak boko jëlé amna am na la fa la fa ne ak loolu nonu ak yenen mbir loolu mom bu ko nit defee moom yaakaar naa ne dan mooy dem sax mujj sax day fogné sax dafa am lu mu àndal fekk sax loolu lolou mo nek sur bu yéme rek té dafa nek tam lo xamné tamit neex ta jàngale ci kaw wala neex ta wax waaw mais dañuy yem rek si li nga xam ci ni ñu man leen man leen ko may man leen ko sédé ngeen jëfëndiko ci kon ma leen ko waxé rek ñëpp mën sé jëriñu dé ngeen kon li ni ma leen mujjé jox ni no ngeen koy défé rek. salat bi balaa nga bind da nga bind faatee ba pare so bindé faatee nga teg allahumma salli ala sayidina Muhammad fatilma ma uxliqa wal xaatil ma sabaqa naasir xaq bi xaq wala hadi ila siraatika mustaqim ala ali xaq khadri wa miqdari azim so pare na nga teg alam nasra la laka sadrak comme ni len ko waxe bu agsee ba si war a fanaa lekk rek nga bamtu ko lim bu ma len wax noonu mi 1397 Denga, bosi boo si paree nag nga tëj ko allahumma salli ala sayyidina Muhammad so paree nak nga def ko safara di sango inshallah rabbi lepp lo bëgg ci mbolo di wax nit ñi di la déglu lépp lépp soo yàlla si politique bi nga yëngutu di jëflanté ak ay nit cadre yi mag yi ñëpp daal dañ lay bëgg sopp la ñepp dañ lay bëgg fo nek rek nit ñi dañ la bëgg sopp la inshallah rabbi wa ndax li moom dafa nek lo xamne moom du du du du du nek daal ay fi caaxaan daal wa kon ngeen gën ko farlu ngeen japp ko te ngeen def ko dañoo bëgg rek ñëpp jëriñu parce que chaîne bi moom ku nekk rek ak sa ak li la ñor am na ñoo xam ne politique la ñuy def ñaan neen ko pour ñu indil leen indi indil na leen ko mu ngi noon jëfe leen ko yàlla dafa leen ci tawféex dafa leen si ndam ndam bi ñu ñëpp ñu bokk ko. beneen bi ngeen gis nii seen écran mooy wa azina fi naas yaxtu ko rijaalan wa ala kulli daawirin ba mu jeex dégg nga euh, su ko defee bi li ngeen ko war a euh, utiliser mooy. da ngeen koy bind juróom-ñaar fukki yoon muy soixante-dix boo leen ko bindee juróom-ñaar fukki yoon ba pare da ngeen koy sangoo moom tam moom tamit cangat la moom bariwul moom moom da nga def si benn butéel bu ndaw rek wa azini fi naas yi parce que naas day day day day day teki mbooloo wa azini fi naas bi bind ko juróom-ñaar juróom-ñaar fukki yoon muy soixante-dix daf ko saafara si benn butéel bu ndaw ak trois parfums yoo xam amul alcool nga diko ko raayoo moom moom de rek ba pare na ngay wirde wa azini fi yaxtuku rijaalan wa ala kulli daamirin bam mu jeex bo nga ba mawlumaatin bi waaw bu ko defee nga koy wirda ba set di raawee saafara seeni moom macha allah moom moom moom beneen mbir la ci mbir yi waaw kon yaakaar naa li wax dégg ngeen ko ngeen def ko rek allah da ngeen gis li wax bu soobee da ngeen di jamu yalla di sedd sel di selal denga nga nek ay julit yàlla moom waxul kenn dara incha allah te képp ku si yàlla may ndoom tànk képp ku si toog si place nga liggéeyal si réew dégg nga ngeen bañ a euh, nekk fa seen poste rek waaye ngeen bàyyi xel itam askan bi nit ñi bu ñu la wóoloo ba teg la fenn góorgóorlu ndaxte ëllëg da ngay rendre compte da ngay rendre compte si kanamu yàlla bàyyi leen si xel si loolu waaw kon nag secret bi mu leen bëggoon a jox tey loolu la. ku si bëgg tamit yeneen yu gën a kawe yooyu am na fi nag wax dëgg am na mais dafa neex tu jàngale yu gën a xaw a doy waar yooyu daal mi ngi fi waaye incha allah képp koo xamante si ni daal ñor na la rek boo ñu contacter dinañ fexe naka lañuy ñuy def ba kiyeen ba dimbalante si daal bu soobee yàlla incha allah kon nag eh, mbir maa ngi noonu ñu ngi yem fii nii di leen di jox dig daje suba ak jàmm incha allah. si yeneen vidéo ak yeneen secret incha allah ku si bëgg secret rek comme ni koy gars yi di defee rek yónnee leen seen question si commentaire yi wala ngeen envoyé ma message si sama tel téléphone kii euh, whatsapp bu ko defee incha allah loolu dana si ñëw jazakallah xeyran